d'accord alors monsieur Dia pour première impression monsieur Sakho plutôt naka le vice li nga mon ni euh, gouvernement bi ñu euh, teg vraiment comme nu ma ko waxee sànq euh, gouvernement bi eh, amoon nañu yaakaar bu baax bi ñuy ak le président Diomaye Faye ci coalition bi pour mm-hmm. mais teji binyu dañu gën a gën a gën Sénégal war na fi mën ba faw parce que boo xoolee gouvernement bi ni ñu ko tegee surtout euh, secrétaire d'état yi nga xam ne mm-hmm. teg nañ leen boo leen xoolee ak service yi ñu leen jox mm-hmm. di nga xam ne euh, président bi li mm-hmm. gën a gën a soxal askan wi dafay fexe mu jege loxoom ba mu mën ci intervenir dëgg dëgg dëgg boo xoolee euh, PME yi ak PMI yi nga xamné ci le Sénégal mëna doxé pour am ay emploi parce que emploi mëno état mënul jékki-jékki créer emploi donc bu nekkee ci wétu président da nga xamné bayina xel deug deug pour jeunesse bi mëna am emploi bo xolé aussi li melni secrétaire d'État bi géré euh, coopératif euh, l'encadrement euh, l'encadrement des paysans mhm. nga xamné ne ba aussi gën na jox gëdd Euh, paysans yi te xool naka la leen mën a organiser ba nga xamante ne nii dinañu mën a euh, jógee ci jafe-jafe. te mhm. béykat bu jógee si jafe-jafe rek. Mhm. Sénégal yëpp dañuy jógee ci jafe-jafe vraiment. Mhm. dañuy gën a am yaakaar ni Sénégal mën na jógee. décoller dem ci beneen beneen beneen beneen bii. bi Biagui ñu doon xaar sa nomination dégguñu la wala da ngaa delloo yow. kii parce que démb ñu ngi doon wax ni ñu bëri dañ leen doon consulter mais dañ ci doon démb mbaa da poste pour nga nekk ministre. yow ban yow ban poste ngay bàyyi man bu ma ma leen. <laughs> moom nit nit presse moo tax mënul bàyyi presse sànq ree am na benn ree ci bureau. bi ñuy déggoo ba pare. Hmm. am na benn ree bu mu doon expliqué maa koy laaj sànq ba léegi may jot. expliqué ko sàmm expliqué wala da ngaa jox sa place keneen am na keneen ku ñu nommé. koo xam ne nii moom am na ñeneen ñu nommé. voilà donc vraiment. Hmm? ñeneen ah ñeneen kay waaw. waaw ñeneen du dëgg. ah ñeneen. wala mën naa la poser question de. quatre famille waaw xam nga interaction la waaw waaw bien sûr. yow xam nga yow décret mu ngi ko. respecté ban décret Sambou décret boobu waxtaanee nañ ko ba pare ñu dem ci gouvernement bi. décret ban la bëggu décret boobu. ban sa micro la coupé. sa micro la coupé. désormais pour être sénégalais. pour faut deux femmes deux épouses. ah c'est le premier décret. mu de léegi man nga ci sa question Sambou demander ci gouvernement <laughs> alors euh, vraiment euh, encore une une surprise ou une une une, une consolidation ci yaakaar. Mm-hmm son premier discours bi mu avant qu'il ne soit président de la république wax nañ ci mu son deuxième discours il ñu ko président avant qu'il ne soit président Il a proclamé déclaré proclamer les résultats son discours il buñ ko président de la république ensuite son discours à la nation ñeenti discours yo de bokul mais lepp mu ngi regroupé autour de l'essentiel li ñi xaar Sénégal et du mu indi gouvernement bo xamantene comme nous monsieur Sakho waxé effectivement li lañ doon xaar def ñi gëna a jox yaakar effectivement les nouvelles autorités dañoo ñëw pour apporter le changement qu'il faut et que les Sénégalais mi la configuration d'abord du gouvernement da ngay xamné euh par parlo amofi, ñi ngi dox ci mais di toujours la configuration de Baïkhel, la géographie du Sénégal parce que vous pratiquement euh, toutes les localités presque sont représentées mais en dehors de ça vous nga ce li ñu c'est a compétence mais dans son discours bi le gouvernement li ko tax a Vous la commencé premier point la jeunesse ça c'est très important la jeunesse japonais naa ne Sénégal si nous voulons développer, mi nous voulons ñu réew mi dox nañu bayyi xel la jeunesse l'auto emploi l'emploi Xalé am xey. et le premier point de la mission de ce gouvernement c'est la jeunesse Lolu mu insister. deuxième bi mu teg ci né li nga mom moy euh euh l'agriculture je pense mhm. hein, par rapport à li nga xamantene mom mo len di moom len di xaar donc mu lim ay points yo xamantene vraiment faut renvoyer ce li nga xamante c'est lañ maintenant nous sur la composition sur les hommes dinañ ci et loolu aussi il faut renvoyer ce li nga xamante c'est ce li nga projet parce que j'insiste beaucoup le projet que j'ai bien lu et que j'ai compris et ça ça renvoie effectivement au projet parce que le projet c'est l'agriculture, c'est agriculture jeunesse c'est l'emploi. emploi ou justice ou à parti politique sur la paix et la sécurité entre autres le projet donc on xoolee l'attelage gouvernemental faut répondre à ce pays vraiment j'ai vraiment euh, apprécié et on a dit président de la république Bassirou Diomaye Faye premier ministre Ousmane Sonko et le premier du gouvernement mhm. est une dame. Racine Hmm? l'intégration africaine. C'est la première. Par contre, hiérarchie, c'est une dame qui vient après le premier ministre. Et ça aussi. Que nous donne pas aussi parce qu'en fin de compte, quatre femmes n'y en a gouvernement au total. Oui, mais je pense que je pense que fi tenir en compte li y mom moy l'égalité ainsi de suite parce que d'un ko galvaudé mhm. Dañuy ñëw finalement jox jigéen loo xamante ne peut-être du foofu mooy rôle am ainsi de suite man mais li ci gën a am solo mooy nga jox gëdd jigéen moo gën nga koy chargé te aloo ko jox euh, mayoo ko dara je pense que lii man très franchement la dame je connais très bien la dame fi ñu ko jox parce que loolu même le premier ministre euh, le président de la République da ko wax ci discours am discours euh, à la nation fële à Diamniadio mooy intégration donc tey bu defee un ministère chargé ko kooku man suis naa ne am volonté véritablement mm-hmm. li nga wax ci intégration africaine mm-hmm. euh, loolu loolu ngi parce que vraiment c'est une dame boo xamante ne euh, elle est elle est focus mm-hmm. sur ce volet là d'accord oui mais xam nga li ma ciy wax rek surtout parce que bi ñuy lancé programme bi à euh, Radisson j'étais là-bas parce que c'est 5 axes 15 orientations parce qu'en en général politiciens ils se perdent dans leurs élaborations souvent ils ont un programme mais après qu'ils expliquer ils passent complètement à côté Beaucoup les dañ une économie endogène parce que ben pays mënul développer surtout les pays africains si tu n'as pas une économie endogène dañ ciy taftal sax une économie endogène et autocentrée centrée Si ce ñun suñu produit yu bëri dañ koy exporter mais beaucoup exporter par exemple tu prends l'huile parce que colonisateur nous imposé et puis politique coloniale les dirigeants n'ont rien changé par exemple ils ont imposé en 1885 au Sénégal la culture de l'arachide mais par exemple avec un kilo d'arachide usine bi marseillaise da un litre d'huile ak ay produits dérivés donc nous devons subir rek avec le coton au Mali le café et le cacao pour la Côte d'Ivoire boo xoolee duñ ci am parce que extérieur même les prix sont fixés à l'extérieur mais par exemple, vous l'agriculture, parce que si vous prenez l'agriculture au sens large, c'est 75% de la population qui pays. Nous développer un pays sans l'agriculture. Une agriculture endogène, autocentrée, sur ce produit, est atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais le gouvernement a vu que atteindre l'autosuffisance alimentaire mais boo xoolee réussir ko parce que dañ ko centré wul ci produit yo xam ni mën nañ ko cultiver fi consommer ko fi transformer ko mu am ay plus-value yo xam ne dina am ay jeexital fii loolu la ñuy échoué mais ñii boo xoolee entre leur programme le projet avec 5 axes 15 orientations mhm. ak tey li ñu ñuy wax ni nga xam vraiment am na cohérence mhm. te ñu ngi ci axe boobu te loolu ñoom ñun ay ay ay ay ñun dañuy xool par exemple ay xool exactement di saytu ñoom li ñuy wax ak li ñuy def ak seen programme est-ce que méngoo na ko programme programme bi bu ñu ko réussir à quatre-vingts pour cent Sénégal day nekk waxuma la un pays émergent mais un pays développé te ñu ngi leen ci ñaanal que les Sénégalais aussi soient patients parce que en un coup de baguette magique mënuñu régler lépp surtout le problème de l'emploi ñun ñu dëkk banlieue xam nañ jeunes yi li ñu wax parce que dafa am inadéquation entre la formation professionnelle et l'emploi da ngay gis ku génn fii tey nga dem ko marché du travail du ci gis dara Mhm. donc tey la ñëpp ko xam ci domaine emploi domaine formation profil nga jël parce que ñun dañeen leen accompagner dañ leen accompagner xool nañuy former jeunes yi xool nañu leen tàggate xam nañu leen di invité xool des par exemple des coréne porteurs ñu investir ci bu ñu accompagner gouvernement bi foog naa ni ñii aussi dinañ ci jàppale lu bari te mhm. dëkk noonu lay doxee mhm. la gouvernement ne peut pas tout faire mënul créer ay emploi ay jeunes yëpp moom laa wax jeunes waa grand lu ñuy xaar te gis nañ ne nga kër leen def leen nànk waaw il faut nga am aussi formation ku nekk aussi formation ba nga def nga xool liggéey ba méngoog moom mais nga am benn niveau bi naan bureau laa bëgg ak Sénégal dafa am mit bureau bureau laa bëgg ak sàmb ñoom sàmb mm. sama bureau sama bureau loolu doxalu dëkk loolu doxalu dëkk donc gouvernement bi aussi ñu on est très vigilant de telle sorte que li ñuy def seen projet bi ñu appliqué buñ bu ñu ko appliqué rek yi dañ ci gis njaxital boo xam ne dina servir d'accord